jox ci àdduna xàqam ndax àdduna boo ci nekkee yi ñu tuddee àdduna mooy ñeent yi alal joo xam ne da nga koo dajale ngir am lu woom rek te amul benn xar sax bu chéré a nangu boo xam ne moo tax fekkente ne danga nga koo fas yéenee puukare woo wala nga fas ko yéenee yëkkati koo ne yaa féete kaw nit ñi wala nga fas ko yéenee bànneexoo rek rek rek yooyu yëpp fekkee moo tax sëñ Tuubaa ne awaluha al maalu wa saaniha taam ñam itam biir boo xam ne dafay fees dell leeru yàlla bu ca dugg nam ca war a duggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam defe ne seen borom de am na jamono yoo xam ne day tibb di xëpp ay leeram yu ànd ak yërmandeem ni ngeen fexe ba taatan seen ndab ci jamono yooyu na ngay taatane sa ndab bokk na ci na sa xol féex bëgg àdduna bu metti nekku ci bëgg daraja wala bañ jullit wala leen genn caay-caay nekku ci te bu ca reggaay itam nekk na nekk diggante xiif ak suur nekk si diggante bi xiif moo gën suur waaye xiif bu metti bi itam kenn taamu ko santaani moom ko ci sharia diggante boobu bu fekkee ne taatan nga sa xol mooy yaa ngi def sa xel ci yàlla malaayika yi yërmande dañuy wàcc ànd ak ay leer dañuy yër xol yi xol boo xam ne féex na te ndab lu set la ñu raxas ko ñu duy ko ba mu fees bu dul noonu nag ñu romb di wéy xol bu ñu fekk ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne ci xaaji guddi yi ay malaayika daañu wàcc malaayika yërmande yoo xam ne leer nañu indi ak njëgal bu ñu dikkee dañuy balul jaam ñi waaye ñaari jaam ñu ñu fekk ñu seq dara maanaam ñu tongoo kenn bañati bi sa morom ñu ñu merante duñ leen jégalul duñ leen defal dara dañ leen di romb loolu moo tax wax dinaa mun na ji mënu nit ki mooy tànn léegi fii ci àdduna fu muy jëm ëllëg bu dee àjjana bu dee fa ca des ndax nee ñu fekk sa row gi rotegul yaa ngi noyyi sa mbir a gis sa loxo bu la neexee nga jëm fii bu la neexee nga jëm fii mooy waxee dinaa na ji dee ni mooy ñaari yoon ñi la suñu borom jàpp ni leen xam ne wenn wu ci nekk mën nga ko seet na ba xam ne mën nga ko bu sàkkal la mën-mën boo xam ne ci yoon woowu te dara du manqué ñu nettali ne ci misaal ci yeete ci àdduna ñett nit dañu bokkoon benn néeg di nelaw mu ngi fanaanee julli rek ki ci des fanaanee nelaw rek ki ci des fanaanee ree ñu di laaj ki nga xam ne dafa fanaanee julli mbiram leer na kenn laaj ko kenn laaj mu ko jaaxalul kenn ki fanaanee ree ñu ne ko yow looy ree mu ne man day li may ree waa ji nga xam ne day julli léeg-léeg mu jaamu yàlla ci teewlu gu metti ba tiit ci la ñëpp di rox di lox ba nga xam ne ñu ngi koy bëgg indil fatxu bi seytaane dal di daw si ngir dox digganteem ak fatx boobule ngir yàqal ko ndax boo amee fatxu yaa gën a soof seytaane adduna ak li ci biiram seytaan daf lay ragal ba du la jege te kon da nga koy yàqal lu bari te da ngay gindi nit ñu bari ndax foo toog yërmande yàlla toog fa malaayka yi dañ fay nekk nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne Sidina Omar du sóobu menn mbedd lu dul seytaane dawee na ca mbedd moomu le seytaan noonu lay ragale képp koo xam ne fatxo ngi jëm ci yow ndax bu fatxo gi accès moom ci boppam day lot bu la jubee cëram yépp day damm loolu te tax bi nga xamee ne waa ji mi ngi bëgg a fatku gaa ngi ko bëgg a dikkal seytaane daw si di daw ba jub ko waa ji nga xam ne mooy ree bu ko seytaane jubee moom moom kii ree leeru xolam googu fakkatal seytaane mu daanu moom ree jàpp ko loolu nag moom mi nga xam ne ay bu fekkente ne waaw kii nelaw xandoor yi muy xandoor moom mooy aalim bi aalim bi nga xam ne aabid la dafa bari xam-xam ba noppi jëfee la mu xam xandoor yi muy xandoor la seytaane ragal ba bu ko defee bu ko jubsee rek dal di daw moom la waa ji di ree ki fanaane ree moom loolu lay ree ak yeneen i mbir mbóot yoo xam ne ay mbóot la yu kéemaane la yoo xam ne day daw ci jaam ñi bu fekkee ne nit ñaa ngi nelaw mu janloog seen mbir yépp ki julli itam mu janloog mbiram yépp gis ne ni ko seytaane yabe te di ko wut si te toujours nag xandoor yi waa ji nelaw moo koy dàq ci jamono yooyu loolu la doon ree mbokki taalibe yi foofu la Serigne Sam Mbaye yamale conférence bi ndax waxtu yi mu war a dem aéroport jot na ngir ñu dellu siwaat nag New York eh, bi nga xam ne fi la ñu jóge woon tàmbali liggéey bi ñu doon dox eh, kon ginnaaw bu Serigne Sam éggalee kàddu yu rafet yooyu ak conférence bu solo bi la jox sëriñ Mame Mor moom Cheikh Mourtala Mbacke moom it mu dénk taalibe yi ñaanal leen ñu daldi di dem aéroport kon ñu bàyyi leen ak euh, Serigne Mamour Mbacke moom Cheikh Mourtala Mbacke. kon defal ci dara kon booyee sa fekk damal na loolu kon da ngay daal a xam ne li nga doon am ko te loolu fekk na nit ñi am nga moom saxal la te jàppal leen da ngeen xam ne pour mu fu mel ne Sénégal ñëw bi te taxul mu soppi dara ba léegi ñu xanaa ne nekkuñ ngir tubaab xanaa ne nekkuñ